asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi ñëwaat toog ci jataay boo xam ne ci ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Saalihu yàlla na ko sun borom may fan wu gudd lool waa ànd ak wér-gu-yaram mu jëm ci liggéey bi nga xam ne baaxoo na di ko fàttalee at mu jot buñ toll ci waxtu wi te liggéey boobu moo di liggéeyu tool yi lagan liggéeyu tool yi lagan mu jëm ci ngóobum saaña mi nga xam ne at mu jot baaxoo nañ di ko fa amal liggéey boobu nag ku ne xam ne ne sëriñ bi dafa am jëwriñam joo xam ne sëriñ Saliou moo ko tànnoon def ko muy jëwriñu daara ja di alhaaji Samiyel saar sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali liggéey bi di ko ci joxaat cër bi nga xam ne moom la ko sëriñ Saliou joxoon waaye nag di ko fàttaliwaat bokk yi nga xam ne ñoo dëkk saalum ak ñi ci baaxoo dem ci dëkk ci biir réew mi incha allahu rabbi dana leen tuddaat ci yeneen jotaay. su ngeen gisee jotaay bi na xam ne sunu kàddu fi mu jëm mooy soññee liggéeyu daaree Lagan mi ngóobum saañu sëriñ bi nag mi ngi jital ak cant ci liggéey yi jiitu woon tey soññee ci liggéey bi nu jëm su woote bi nag ñi ngi koy tàmbalee ci Cheikh Abdou Latif Jenn mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Issa sëriñ bu Jenn moom sëriñ Baara sëriñ Sidi Naar Jenn mi xalifab sëriñ Naar ak njabootu Cheikh isa gépp di jiital tam ci woote bi tund njenne lagan wépp te muy njenne lagan xay mbayaar daaray sidi daaru rahman daaru salaam daarul mannaan mesere cele tewru ngari xaybarka daru salaam niis baxdaat lansar touba ngene ak curangeen bu dee fi ci touba tam ñi ngi soñi wa touba lansar ci njital serigne cheikh diop ak wa ndand fall ci njital serigne dam fay ak mboole dan andal ak wa njabel ci njital serigne cheikh ak serigne cheikh ndak di soñi bu baax tam jëwriñ ji nga xamni mom la serigne bi tan ci liggéey bi ci taxaway yi samuel sar di ko sant itam ci taxawaay yi ko jiitu woon di sant itam Serigne Babacar Touré mi nga xam ni moom itam moom ni jàppandal dem gi ak Cheikh Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllug euh, transporteur ñu ngi leen ci sant bu baax kon nag ñi ngi soññi mboolem taalibe yëpp te leen ci xaar dañ leen leen ci daan xaare Lagan nag ni ko Serigne Youssou waxee mi ngi ci wetu njenne euh, sëriñ bi def na fa jàpp ndal goo xam ne ñëw gi dana yomb ci oto yu mag yi ndax ku ñëw ba Malka mën ngaa jaare foofu bu dee tëlib mbul bi it ba tey diggante boobu oto yi mën nañ fee jaar kon sëriñ baa ngi ko yëgal ñëpp bokk yi ak bokki dëkkandoo yi rawatina li gën a jege lagan di ñaan sëriñ bi indi leen ci jàmm te defal leen tawféex di ñaanit it sunu borom mu gën ñoo sàmmal yoon yi bañ agsi ci jàmm waaye loolu itam mi ngi ciy fàttali borom oto yi bu baax a baax di ñaan sëñ Tuubaa nag mu defal ñu kaaraange ak tawféex ba ñëpp ñëw ci jàmm ñëpp agsi ci jàmm. liggéeyal sëriñ bi te sëriñ bi nangu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. liggéey bi nag incha allahu rabbi mi ngi war a doon le 2 décembre départ bi nag sëriñ Abdou Touré mi yor ci wàllu oto yi nee na képp ku soxla oto bu war a jëm Lagan na nga woote ci balaa le 2 décembre incha allahu rabbi.